tey ñu teew fii ci département Diourbel pour lancer projet boo xam ne bii muy projet bu mucc ayib di projet de réponse à l'insécurité euh, alimentaire parce que xam nañ ne waxtu bi ñu tollu tey ci biir réew mi euh, et que mën naa ne ci àdduna bi am na crise yu bari yi nga xam ne tey euh, ñi ngi koy traversé gis nañ ne tey avec le changement climatique maanaam taw gi wàññeeku na des fois aussi mu indi ay yàqu yu bëree bëri Euh, beneen wàll bi également gis nañ ne tey euh, feebar bi naan Covid 19 jaaroon na fi euh, gis nañ ne aussi am na tey benn crise économique boo xam ne li ko jur mooy lële xew fële ca Ukraine ak Russie loolu lépp nag tey mu laal pays yu bari Sénégal bokk ci ah président de la République ci mbaaxam ak aussi ni mu bàyyee xel ci askanam. mu ne moom maanaam du def kumba am ndey kumba amul ndey donc tey sénégalais bi yor ak sénégalais bu yorul ñoom ñëpp dañoo war a sentir ne ay sénégalais lañ moo tax mu jël projet bu mucc ayib bi bu toll ci 3 milliards 304 euh, millions 440 mille francs ci accompagnement banque mondiale ne da koy jagleel ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu tànnoo nag ñeenti département ci réew mi bi nga xam ne tey ci suñu outils yi ñu yor li ñuy wax cadre harmonisé depuis 2022 ñoom ñu amoon ab natt bi ñu defoon gis ne ci ñeenti département yi kat suñ ci deful ndimbal amaana mën nañ am euh, jafe-jafe surtout ci population bi mais rawatina ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw moo tax tey soo xoolee 3 euh, milliards ñetti milliards yooyu noonu euh, ak li teg dañ koo wasaare ci biir ñeenti département yooyu ci département Diourbel bii ñu nekk nag mu am ci pàcc bu rëy rëy bu tolloog ci milliards ak 298 euh, euh, millions boo xam ne bi euh, séddale nañ ko danañ ko séddale ci biir département bi te dina dem ci ay famille lu tolloog ci 10 896 familles fii ci biir département bu Diourbel